day dem wala demul nous ne savons pas mais du ñak di ngeen ci am lu leer parce que président Ousmane Sonko watina na otoom fi ni wax ak yéen ni mi ngi wax ak ñi nga président Ousmane Sonko Watina, na ma ngay dox ma ngay président Ousmane Sonko fan la jëm ken xamul est-ce que day dem wuy ji ken xamul Ousmane ma nga nonu di dem président Ousmane Sonko changé na auto duguna ci auto benn Mitsubishi bu voilà nervi yi ñu doon wax a ngi nii voilà nervi yaa ngi noonu nervi yi